kaddu yi moom du mën naa bañ a gudd euh, ndax day kaddu yoo xam ne euh, kaddu yi euh, tànki couleur lay nekk couleur gi nga xam ne moo doxoon ci diggante sëñ Bassirou Fall alxuraan ak le président Macky Sall muy couleur goo xam ne day couleur gu yàgg sunu borom boole woon leen ba président di wut réew mi jotugu ci sëñ Bass nekkoon wajur ci moom nekkoon sëriñ ci moom nekkoon xarit ci moom daan ko jàppale daan ko ñaanal ba yàlla jël réew mi teg ko ci ay loxoom. këllër googu soxna itam diirub li nga xam ne nekk na fi mu ñu wéyal ko fii ñëw nañ fi ay yoon yu baree baree baree baree bari ci turu président Macky Sall kon loole nag bu sëñ Bass wanee ginnaaw moom dafa gën a jàpp njaboot gi. ndax li war a fi wax kóllëre ginnaaw lay féete te yéen ñi fi nekk itam di ngeen ko bati sëkk te moo tax ba tey jii ni nga xam ne noonu lañ daan dikkee ci màggal gi te ñu dikkewaat noonu ci màggal gi turu président de la république muy ñaanal sëñ Bass sunu boroom fay ko lu kawe njortam te lu baax la nga xam ne daana ko def ci kaw àdduna di ko ñaanal itam maamam yu baax ya mu di Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima Fall mu dëkk ak ñoom ci anam goo xam ne mooy anam gu gu rafet gën a neex e, di nekk nit koo xam ne nit ku jàmbaar la woon nekk nit koo xam ne nit ko amoon diine la woon nekk nit koo xam ne nit ku amoon pas-pas ci yoonu murit amoon taxawaay ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall. te loolu tegtal ba rek moo di dem ba ci sëriñ Bassirou Fall alxuraan foog naa loolu doon ab tegtal képp ko sañoon ku ne da am dakkantal woo xam ne dakkantal lu mel noonu lay doon. kon nag bu wanee ginnaaw itam yéen ñi nga xam ne ñoo ko fi wutu ngeen nekk fi nekkin woo xam nekkin wu rafet la toppatoo bokk yi toppatoo taalibe yi toppatoo njaboot gi di seetu lépp loo xamante ne bii sëñ Bass bàyyi na ko fi muy loo xamante ne ñëpp ñu ngi ko rafetlu moo tax président mi ngi lay nuyu. mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la xamal ne yéen a bokk bàyyi di xamal ne fii nga nekk moom nga fi nekkal ndax képp kuy saytu mbirum sëñ Bass rek moom nga ko defal ndax moom bu ko ak bu jotoon mayoon ni mu la waree noonu la ko waree ndax këll rek nga xam ne moom la ñu moom la ñu seqoon. di siyaare baax itam sëñ sëñ Cheikh di ko jaarale ci sëñ sëñ Bass bi nga xam ne heure bu ñu mosaan ñëw ci sëñ Bass fa alxuraan moom moo ngi daal dal moo ngi daa yombalal lépp moom la ñu fekk kon sëñ bas ñu ngi lay ñu ngi lay ziar. ñi ngi lay ñi ngi lay nuyu moo tax tey itam bi may jóg moo woo ko nekkoon nañ fa eh, nekkoon nañ fa daje ndax moom itam taxawaay bu rafet moom la moom la amoon te booy mooy wéy kon boo demee itam nag ñu siyaareel sëñ eh, sëñ Cheikh xamoon ko ne ko bu soobee yàlla ci biir ay bis gi danañ dellusiwaat boobu Dame Diop lay àndal ministre buñ dikkee ñu jaale ko eh, ki nga xam ne moo sëñ Bara te bàyyi ko fi bu bu yàggut. tey jii moom màggal gi moo ngi tax a jóg te ndax njaalum gudd mi xañ na wuñ ko lool lool lool waaye itam li nga xam ne mooy dayoo kër gi ak li nga xam ne mooy li ngeen seq ak président de la république dafay dafay jar ñaari yoon yi am ndax ala kulli aal jaale jaale bu mënta kon loolu daal moo nekkoon kaddu yi eh, maa ngi ànd ak adjoint sous préfet ni ko sëñ Mbacke eh, li ma léegi sëñ Mbacke Fall ak sëñ mbas ak moom mi nga xam ne seen seen doom la moom itam am taxawaay bu rafet nag ci ci ci biir parti bi di jàppale bu baax a baax président. moom itam fii mu mu nekk fi sunu sunu buntu kon daal ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di siyaare bu baax nag sunu mbokk mbaax mi ñu fekk mu di mu di sëriñ di ko nuyu moom itam di rafet lu baax taxawaayam di yóbbante ab nuyoo ak ay ak ay cant ak ci sunu mag di sunu sëriñ di sunu lépp di sëriñ Cheikh Madina di siyaare mboolem mbokk yi ñu fekk yëpp kii moom sama bay faa la <laughs> waaye koor ba koor nag laa koy gis. <laughs> kon daal ñu ngi sant ñëpp di di di gërëm ñëpp <laughs>